Cissé bonsoir et le même plaisir. plaisir euh, partagé alors Moussa Tine damay démarrer par un fait divers euh, une actualité qui s'incruste mooy euh, le cortège euh, du candidat Khalifa Ababacar Sall gazé au niveau de de de moom Khalifa Sall dénoncé ko ko est-ce que xam ngeen les raisons qui ont causé euh, cette situation. alors <laughs> merci beaucoup may euh, euh, Maïmouna en fait j'ai envie d'abord de rigoler. Euh, parce que xalifa yàlla moom ma àtte ak moom. Hmm. dafay wax fan yii yëpp ne saa yu ñu ko gazee man la àndal. <laughs> ah bon. yàlla def démb demo ma ñu ñu ñu ko <laughs> donc xam naa ne. atte atte sunu borom moo dal ci euh, ci moom yàlla ñu doon atte je porte la poisse donc mi ngi noonu. bien maintenant oui en fait dañuy dund ab situation bu bu compliquée et effectivement les gens ont raison au départ on nous a laissé faire on a fait une mobilisation à à Grand Yoff on a dit oui oui bon après euh, euh, Anne c'était aussi énorme HLM c'était énorme bon on s'attendait un peu à ce que les gens disent à un certain moment doy na quoi mënu leen a continuer di def loolu parce que nous on est en campagne pourquoi parce que on était déjà préparé Euh, def campagne électorale on était préparé euh, def suñu convoi euh, on avait mis en place tous les dispositifs pour entrer en, en, en campagne nous étions prêts à commencer la campagne dès le lendemain euh, de l'argent d'ailleurs avait été déjà engagé pour faire le meeting de de de la banlieue c'était à, à Pikine ñu bëggoon a rendre hommage euh, Idrissa Diallo bëggoon def meeting à à Dalifort ñu xëy suba teel en le président décide ne retiré Euh, euh, loolu et d' ailleurs il faut que ñu bàyyi li ñuy def parce que aujourd'hui d' ailleurs il faut que les candidats y pensent il faut à un certain moment ñu saisir la justice pour demander à l'état mu dédommager candidats yi parce effectivement il y a quand même un problème les gens ont mis leur argent dem jëndi seen affaire luy ay oto de yu ay kenn xam ñu xëy suba teel c'est un simple acte de Macky Sall on nous dit non processus bi yëpp euh, arrêté na ça c'est pas le conseil constitutionnel qui va les régler la cour suprême est compétent pour tout ce qu'on appelle le, le contentieux subjectif. donc je pense en certainement il faudra effectivement ñu ñu ñu delluwaat si loolu parce que y' a un préjudice bu candidat yëpp euh, candidat yëpp subir d' autant plus que euh, le le conseil constitutionnel wax na Macky Sall li nga defoon teguloo ko ci euh, euh, teguloo ko ci yoon du ñun rek d' le président ton je, je considère d' ailleurs que j'ai vu que le président dit que il, il demain je considère que le président lu mu war a njëkk a def c'est présenter des excuses au peuple sénégalais Macky nous doit des excuses c'est-à-dire on est en train de rendre cette situation-là tout à fait ordinaire c'est-à-dire nga xëy suba teel ñu ne élection tey la dix heures de temps avant le départ de la campagne tu prends un acte tu dis man maa convoqué woon électeurs yi dindiwaat naa électeurs yi euh, euh, dindi naa sama convocation dindi naa sama décret ñu dem si cour cour bi na la amuloo si sañ-sañ amuloo ci droit sa décret baaxul sa sa euh, sa loi baaxul. ça ça dinañ ci revenir. oui mais mais mais est-ce que est-ce yi rek la ñu war a dédommager. non pas du euh, tout y a y a les les médias euh, les Euh, ñu entreprise yu bari qui ah. vivent de ce business ah. électoral là dañoo def des investissements ah. euh, certains ont fait des bon am nañu def ay investissement euh, dem collecter de l'argent lépp xaal alalu jàmbur en te disant que mois de février je vais payer aujourd'hui tu es dans l'impossibilité de de payer cet argent là par exemple je me rappelle benn yoon ni dañuy xëy suba teel ñu ne yokk nañu région alors les gens ça ne se rendent pas compte que boo xëyee nga ne yokk naa benn région Sénégal livre géographie amoon yëpp benn baaxatul c'est la aussi ici c'est-à-dire que tey dès lors que ñu ne élection yi 25 février la ñun ñëpp ñu dem defi ay affiche 25 février yow nga dem defi say kii ñoo defal la 25 février élection présidentielle du 25 février ngeen di ay techniciens ñëw liggéeyal la defal la say bâche defal la say yëpp nga ñu xëy suba ñu ne élection yi même bu dee 26 yooyu xaaral kayit yi nga defoon yëpp si il faut. dara dara euh, valable en fait euh, mais yow mi di yow mi di juriste yan yan yan yan euh, pour pour les citoyens pour les entreprises. yan voies et moyens judiciaires lañu mën a utiliser le tribunal de grande instance bu ñu leen wooyee tribunal pour contraindre l'État à payer des indemnisations. tout ce qui est contentieux subjectif c'est-à-dire nga xam ne état bi daf la poser dommage mu un acte administratif bu la poser dommage. c'est le tribunal de grande le tribunal de grande instance donc au-delà aujourd'hui de ce qui s'est fait au niveau du conseil constitutionnel ah oui absolument les gens peuvent à l'État de réparer ce que Macky Sall a fait oui ça cher à des gens euh, yow aujourd'hui nga xam ne da liberté d'entreprendre yow defar sa entreprise taxawal sa entreprise élection ñëw ngay investir sa xaalis bop pour def euh, def élection def ay commercial signé ay ay contrat def lu kenn xamul ñu xëy suba teel ñu ne non élection bi amatul euh, ñu xëy ñu ne waxoon na amatul sax acte ba mu jël baaxul sax li ko état bi fois tooñ na la parce que en réalité lu mu waxoon nekk waxu ko woon a def mais deuxièmement xaalis bi nga engagé woon effectivement euh, tey naax saay na et c'est ça la responsabilité de l'État effectivement il est possible de poursuivre l'État au nom justement de cette euh, pour réparer